noo ngi ziar ñëpp di ziare mboolem njabootu Serigne a gi fi teew yëpp waaye di jël nuyoo bi ak ziar bi nag di ko teg ci jëmm ji nga xam ne mooy kilifa jotaay bi te yor kaddu Serigne Touba muy Serigne Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Khadir noo ngi koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool Mbacké te may ko wér di ko yaatal ci mboolem kilifa yi nga xam ne teew na fi Cheikh Mouhamadoul Badawi moom Cheikh Amadou Fadal yabal na fi délégation liggéey bii ci loxoom la tege njabootu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma Serigne Abdourahmane Gaynde Fatma yabal na fi Serigne Bassirou ñaan Cheikh Mbacké Mboup ak Serigne Ahmadou Ndiaye Ngeeraan famille Serigne Ibra saar Njaañ buntu kër yëpp a ngi fi xalifa bi Serigne Sidi saar mi ngi fi waa kër Serigne Modou Sarr ñi ngi fi waa kër Serigne Baye Serigne Sarr ñi ngi fi waa kër Serigne Mbacke Sarr ñi ngi fi waa kër Serigne Fallou Sarr ñi ngi fi waa kër Serigne moor Diarra saar ñu ngi fi ñoo ngi ziar baax tam famille waa kër Serigne Abdoulaye Coxab Jaw Paxa ak famille Serigne Modou Jaw Paxa noo ngi siyaare waa kër Cheikh Mouhamadul Amin Diop Adagani di ziare baax njaboot gi fi teewlaa kër Serigne Ali Fall Mbawor famille Serigne Modou Fall Nayde la dara Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy xalifa bi ak soxna Fatma mi nga xam ne moom soxna Fatou Fall mi mag ñi soxna ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye tamit waa kër Serigne Modou Mamoun Niang Serigne Cheikh Mbacke Niang di leer ci moom mi ngi fi toog li nu dajale tey mooy fas yéene teg xeer wu njëkk barab bu am solo bu ñuy wax miftaaxul naa tur wi nag mi ngi bàyyi ko ci euh, gàmm lam mi ñu Cheikh Mouhamadul Mountakha wu tedd woowee muy centre d'accueil boo xam ne nii war naa doon téeméeri néeg ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite muy dalukaay yoo xam ne kilifa lañ koy beral la waral yitte ji nag mooy dalukaay yoo xam ne tey hôpital bi nga xam ne moom la jàkkaar lool ñu war ko faa def incha allahu rabbi lépp lu ci nekk turu Serigne Touba la terrain bi turu Serigne Touba la sëñ Mountakha moo joxe turu barab bi teg ko ci loxo sëñ Ahmadul Badawi téeméeri néeg la ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite waaye loolu lépp bu pare li ko a mooy centre d'accueil la képp ku ñu hospitalisé nga ne ci hôpital ba di faju sa ginnaaw amoo fenn euh, foo xamante ni nii mën nga dem foofee ngay nekk ba sam faj àgg nga sa yitte kon loolu lu kawe la liggéeyal tubaala Touba la ginnaaw bi ñu fàggoo hôpital Cheikh Ahmadou Khadim loolu nag ki koy amal dongob Serigne Touba bu xeebu boo xam ne Cheikh Amadou Moustapha rek la teg fi kanamam muy Alaaji Pape Fall ami bitik ànd ko ak njaboot gi yëpp muy mboolem njaboot gi nga xam moo njabootu Serigne Ibrahima Sarr Njaañ nga xam ne lim naa leen léegi jotaay bi ko te euh, jamono ji tolloo ay yitte damay ba teg foofu sama loxo kañ lañu koy def le 3 février. tolloo ak ñaar fukki fan ñaar wala ñett ci yoon rajab fee nga xam ne moo nekk ci hôpital Cheikh Ahmadou Khadim ci yoonu Mesere bi incha allahu rabbi bu 11h jotee. ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigal ndigalul sëriñ Abdourahman Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di ab xalifaam ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp mu yabal nu fii tey nag ci waajuram léppam mu Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdul Xaadir ngir ni ko sëriñ Cheikh Mbacke bu waxee léegi ci jëf ju rëy ju màgg ji nga xam ne incha allahu moom la ñuy war a tàmbali le trois février sëriñ Abdou nag wax ne suñ ñëwee nañ jël kàddu ci turam waaye itam jottali loo xam ne ñëpp xam nañ ko waaye itam nag ñu fàttali ko ndax alxuraan moon wax ne na ngeen di fàttali ndax fàttali na jariñ ku gëm muy jëf jure ji nga xam ne euh, kenn ci moom koo xam ne ay waajuram ñoo àndoon ak i waajuram te mësta teggi tànk seeni mësuñoo teggi seen tànk fañ ko teg loola itam di loo xam ne alxuraan moo ko wax ndax moo wax ne minal muminina rijalun saddaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man xadaa nahbahu wa minhum man yantadiru ma baddalu tabdila muy wane ne Pape Fallé mi mii nga xam ne suñ borom dalee na boole bu yàgg boole woon way jur yi mu ànd ak ay way juram wa ànd ak i magam ba mu nekk fi mu ànd ak moom mu di leen jottali rek pastéef boo xam ne xam na ko ci moom te loola nag mooy la fi maam yi bàyyi woon rek béykat yi ñu tàmbalee léegi Euh, jataay bi wane na ne li sëriñ tubaa ñaanoon ci bayit yi lépp suñ borom defal na ko ko ndax itam loolu mooy bàyyi fi ñoo xam ne la nga daan def ci lu baax ba ñu ñëwee dañ koo àggale dañ ko gën a dañ ko gën a rafetal wolof njaay nag nee na waxtu woo jiyee te say tooba réer la nee na négal ba mu taw hmm. nee na su tawee rek nga xam fi nga ji woon nee na kon nag nji mi sax na mi nga ñaan mi ngi koy ñaanal yàlla nag sunu borom subhaanahu wa taala mu dolli ko jàppale. ndax kat lépp loo xam ne war na war na ko rek mi ngi koy def tey soññu ko ci dara ayiwu ko dara itam loolu nag ak taalibe rek moo ko man nee na kon mi ngi koy ñaanal di ko seeri jullit yëpp di ko seeri taalibe yëpp di ko seere mbokk yëpp. ne mu gërëm la te ngërëm lii mu am ci moom itam yàgg na ko am ndax amoon na ko ci ay magam amoon ko ci ay waajuram tey taxu koo teggi tànkam. fi dajale rek ñu ñëw fii noonu ñu ko limee léegi rek ñooñu ñëpp nag ñooy ñi nga xam ne ñooy bokki Pape Pape Fall kon ñu ngi siyaare sëñ Abdourahmane Mbacké moom sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma nga xam ne mooy sëriñ Pape Fall Pape Fall nag day sunu jarbaat nun waa kër Cheikh Ibra Sarr ñii muy seen di seen nijaay muy seen jarbaat yàlla dogal nag liggéey bii nga xam ne moom la fas yéenee amal moom nag xamal na ma ne ma defu ko ngir bëgg a liggéey ndax képp koo xam ne dangay liggéey da nga yaakaar ak ak pay da koo def ngir ak sant jëf ji nga xam ne moom la tàmbali ku ci yàlla andee nee da koo def ngir ak sant te ku xam ne la in shakartum la asidanakum ndax xam na ne kat sëñ Tuubaa moom maanaam maamam yëpp liggéeyal nañ sëñ tubaa liggéey boo xam ne liggéey bu nangu la ba xéewal yee mooy baawan mhm. ba tey ak si ci moom bëy diñ fi tudd léegi di jasaaka moo mag yoon wi kon Ibra Sarr Njaañ ba muy ànd ak sëñ Tuubaa booba maanaam dégg nga rabbi asaabaka bil himma wala tarabbihim bi darsi boobu taxawagul nangu ndigal moo ko may abiyaat yooyu kon nag sëriñ Basiiru Mbàkke e ñi ngi lay seedeel ne Pape Fall mii ak ay bokkam yi mbokkal soxna Ami Sarr yëpp njabootu Cheikh Ibra Njaañ sant nañ ko gërëm nañ ko ndax kër Ibra Sarr Njaañ tey ñëpp ñëw nañ mhm. sëriñ Siidi Sarr ma nga xam ne muy xelif Cheikh saar Njaañ moo bëggoon a ñëwal boppam ñun ñoo ko xamal ne ko rek njaboot gi bu ñu demee rek doy na kon bu ñu tuddee rek ñu xam ne sëñ Xalil saar mi nga xam ne moo jiite kër Baye sëñ Sarr moom itam ay rakam ñi ngi fi ak i doom waa kër sëñ Mbacke Sarr moom Cheikh Ibra Sarr sëñ Abo Sarr ma nga xam ne moom bu mag ca kër ga moom it tànnal délégation ay ay ay yëpp ñëw nañ waa sëñ Falilou Sarr moom Cheikh yi ñëpp ay doomi Cheikh Ibra Sarr lañ waa kër sëñ Fallou moom itam sàkk na maanaam délégation boo xam ne ak njabootam ñëpp ñu ngi fi ak sëñ Mor Diarra Sarr gi nga xam ne mooy caat mi nga xam ne sëñ Mor Diarra saar mooy jur soxna Amy Sarr soxna Amy soxna Khady Diaw mi ko jur sëñ Abdoulaye Diaw moo ko jur sëñ Abdoulaye Diaw ak sëñ Mat Diaw paxa ñoo bokk lépp kon bu ñu fi tuddee kër sa euh, kër sëñ Malamine Diop Dagana ku ne xam ne ne soxna Oumy Diaw moom la joxoon sëñ Malamine Diop Dagana kii ab xalifaam actuellement mooy sëñ Moustapha Diop ma nga fële ca Njaareem wakk sëñ Mourou Mamoun Niang si yërëb teewaay itam looloo ko waral it pap xamal na ma ne ma bi sëñ bi door toog ci xilaafa gi moom sëñ sëñ Muntaxa nee na ko danaa la dimbali danaa la dimbali dëgg la alhamdulilah sëriñ Mouhamadul nee na mi ngi nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp nee na mi ngi ñuy jottali nuyoo sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii sëriñ Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér sunu borom it dolli ko kattan akuk wér ba mu mottali liggéeyub sëriñ Tuubaa bi ko ci bokki taalibe yëpp nee na mi ngi ñaan bu amee lenn loo xam ne am xelam faay na ko rek ñu jéggal ko ndax wala xad xahid naa ilaa aadama min xablu fa nasiya loolu moog doomu aadama ñoo ànd doomu aadama dafa mën a kon mi ngi tàmbalee nuyoo bi rek. ci njabootuk Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ. ñi nga xam ne ñoo fi teewal sëriñ Sidi Sarr may xalifa ba. te njaboot gépp nag maase teew. kër yëpp teew nañ. di leen yóbbante ab nuyoo ak cant ak ngërëm. ndax yéen kat Serigne Saliou da daa wax ne. yéen yéenay njiglaayul yoon wi. moo tax ñaare kër gum mas a sanc sëriñ Saliou da daan wax sëñ Basiirou saar na ko bu ma sañoon nga jiitu fa ndax yéen yéenay njiglaayul yoon wi ndax ñoom kat ba ne ànd ak sëriñ Touba seen maam booba yoon wi taxawagut de booba yoonu murit amagut sëñ Ibrahima Sarr nangul sëñ Touba lool nee loolu day gudd ci jataay bii. waaye yàlla def na it. waaye nag yàlla def na. ba nga xamee ne. ba nga xamee ne. Serigne Touba suñu wax na ko ne ko. sunu borom wax na Serigne Touba ne bi maa tuumaru. te ba mu waxee rabbi ashaabaka bil himmati. wala turabbihim bi dars. Cheikh Adama Gueye moo njëkk a jaayante ak Serigne Cheikh Adama Gueye moo njëkk jaayante ak Serigne Touba. moo juumut Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo ca topp. moo ca topp. kon moom. yàgg na ci sëriñ moom de yàgg na ci sëñ Tuubaa de. njabootam gépp itam. fasteef boobee rek. ak yoon woowa. ak doxin woowa. ca lañ nekk. bëgg sëriñ Tuubaa. yamale wun sëñ tubaa ak dara. seey nag ci biir sëriñ Tuubaa. bëggit njabootuk sëriñ Tuubaa gi. ñi ci des ñëpp itam. muy njabootuk sëñ Abdoulahi Jaw Paxa. ak sëñ Mut Jaw Paxa. ñi nga xam ne ñoo ñoom ñii ñoo ànd. ak njabootu sëriñ Aliou Fall Mbawar. ngeen ko léegi. Cheikh re nag ñëpp xam nañ ne mu demee ak sëñ Touba. sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana. moom la sëriñ Touba mujj a jox ndigal. ca xutbatu Wamsasin. ak njabootu sëriñ Mouhamadou Mahmoud Niang mii. sëñ Modou Mamoun ñang ku ne xam ni mu demee. waaye juróom ak Cheikh Mouhamadul Fadal. waaye juróom ak Cheikh Mouhamadul Fadal. waaye mu nekkoon ci kër sëriñ bi. waaye nag mu nekkoon ci kër sëñ Touba. bàyyam jeexal lépp ci sëñ Touba. lépp ci sëñ Touba. xam naa du ñàkk lu ma fàtte sax. li am solo rek. waaye li ci am solo daal. kenn ñëw fi ngir bëgg kenn ñëw fi ngir bëgg rek ñu lim la. ku fi ñëw Pastef la fi andi. ku fi ñëw rek Pastef bu démb ba moo la andi. loolu képp moo leen yëkkati. ndax yoon wi moom loola ci naqari rek. dama naan loola ci naqari. jógewul ci cosaan ya. kon nag ci turu Cheikh Mamadou Mountakha. kon nag ci turu Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. Eh, ma teewaa leel fii nag. nee na mu teewaal moom Cheikh Bassirou nag teewaa leel fi. sama kilifaam. kilifaam. di Serigne Ahmadou. di Serigne Ahmadou Mbacke Badawiyu moom Cheikh nga xam ne moo waroon a ñëw ñu ànd ko. waaye nag moom. waaye nag moom. wa yusiruuna ala anfusihim. wa yusiruuna ala anfusihim. walaw kaana bihim xasaasatun. walaw kaana bihim xasaasatun. noonee lay doxee. moo tax danaan boo teewee moo tax danaan boo teewee rek. teewaaleel nga ma. waaye yàlla dogal na liggéey bii. bi ko sëñ Pape Fall xalaatee. bi ko sëñ Pape Fall xalaatee. toll tolloo ak ñoom seen kuréel googu ñu taxawal. tolloo ak ñoom seen kuréel googu ñu taxawal. sëriñ bi boole leen sëñ bi boole leen ak sëñ Ahmadu Badawi. bari ca ñu tabax ay tabax yu bari ca université ba. ci biir loola nag. ca biir loola nag. ca la xalaat xalaat bi ca la moom sëñ Pape Fall mi xalaate xalaat bii. sëriñ Ahmadou Badawi gunge ko ci. xalaat bi xalaat bi. ban agsi fii tey. ba mu àgg ci sottileti. tam war koo tàmbali. tam war koo tàmbali. moom sax bëggutoon kenn yëg ko. dana woon da koy def rek ngir sëñ Touba. ca loolu dong moo ci am solo. waaye jëf moom sellal gi moo ci am solo. waaye jëf joo xam ne. bu ko ñëpp déggee. man caaro loola siiwal ga wàññiwul dara. kon ñu ngi lay gërëm bu baax. rawatina na rawatina nag. ginnaaw ba nga ci amee ndigalul sëriñ bi. ginnaaw ba nga ci amee ndigalul sëriñ bi. li muy baax baax. li muy baax baax. wa aatul bu yootam min abwaabiha. da ngaa dem ci sa sëriñ. muy sëñ Abdourahmane nga laaj ko ci ndigal sëñ Abdourahmane nag moom pasteefam akuk taalibeem akuk baaxam akuk bëggam sëñ Tuubaa ak fonk kilifaam kenn mënu ko caa jiitu nee na moom mii di sëñ Basiiru wóor na ko ne bu tàgguwutoon sëñ Abdourahmane day bëgg ca lam def rek nee na loolu la yàlla def ci moom kon ñi ngi lay ñaanal bu baax ndax xam nañ ne baat bi wala fii de wax naan lu juddoo ci am tàgg. ci am tàgg. bu naawut jaaxal ay bokkam. bu naawut jaaxal ay bokkam. waaye eh, sëtub Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ. waaye sëtub Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ. bu amee dogu ci yoon wi. bu amee dogu mel nii ci yoon wi. nee na du bett kenn. te liggéey bi rëy na. te liggéey bi rëy na de. ndax loo xam ne da koy liggéey mat na milliard ak genn wàll. ndax loo xam ne la koy liggéey mat na milliard a genn wàllu milliard. mënoon nga koo def feneen. waaye nag fii nga ko dugal. moo gën fop ëpp solo. ndax sëñ Tuubaa wax na Serigne Massamba Diop Sam ne ko. wax na Serigne Massamba Diop Sam ne ko. Massamba. Massamba. mu ne ko Mbacke. baa xam nga ne ak Dame Sane mu ne ko baa xam nga ne man mii ak Dame Sane laa. Dame mooy dencukaay. Dame Sane mooy dencukaay gu mag. mu ne ko mu ne ko mu ne ko kon de Mbacke. mu ne ko kon de ñu fas yéene doon ay lantinoor. ñu fas ko loolu de képp koo xam def ko. mu ne ko loolu képp koo xam ne def nga ko. buñ ba fa nga xam ne. buñ demee ba fa nga xam ne. kenn mënu am ak diw. kenn mënu faa am ak diw. muy ndénkaan. la nga defoon ca Dame daamsaan nga la ma dénkoon nee danaa la ko jox ba nga xam ne daam daamsaan ga séenu ko moo tax sëñ Abdou Lahad danaa wax ne sëriñ euh, bu ñuy jox addiya sëriñ bu ñuy jox addiya te du te du joxe addiya. daa mel ne ku yor sa waxandew gaal. daa mel ne ku yor sa waxandew gaal. ku ku fóot ay yéreem. ba mu set mu set. mu jox la nga la dencal ma. bañ àgg bañ àgg nag ca bis bañ war a daje. ku ne ku nekk ñëw na la anam bu maa la dénkoon. nga yëkkati joxe. ba mbubb ya jeex. ba bu fekkul nga sa mbubb. bu fekkutoon nga def sa mbubb ca gaal ga. xottu gaal rek ngay dese doo am loo waaje kon ñu sëñ Pape ñi ngi lay ñaanal jëf ji. nga xam ne dafa ànd ak hôpital bi. nga xam ne dafa ànd ak hôpital bi. ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am yitte la. ndax sëñ mu Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am yitte la. ndax li sës ci hôpital bi. ndax li sës ci hôpital bi. dafa amoon ay borom yu ko moom. dafa amoon ay borom yu ko moom. yàlla def docteur Sorong. yàlla def docteur Sorong. di ku bëgg dëkk bi. di bëgg dëkk bi. mu ñor ko lool. mu ñor ko lool. xam naa ne loola ca maamam la ko jële mu wax sëñ bi ne ko la fa sës daal. wax sëñ bi ne ko la sës ci hôpital ba daal. dama cee amoon xalaat bu rëy mooy jënd ko. mooy jënd ko. ñu dolli ko ci hôpital bi. ñu ko ci hôpital bi. ndax dafa manqué fu ay kilifa mën a nekk. ndax dafa manqué fu ay kilifa mën a nekk. nga xam ne bu ñu yokkee hôpital bi yokkee ko foofa. sëriñ bi yónnee juróom fukki bi daal di yónnee Cheikh Mamadou Bassir juróom fukki million. ma jënd ko. ma jënd ko. jox ko ko. jox ko ko ba miire nañ ko. ngir xalaat loolu. ngir xalaat loolu rek. kon bu yàlla defee moom mii. kon yàlla defee moom mii. la sës ci hôpital bi. ba. jënd fa terrain bu mag. mu jënd fa terrain bu mag. def ko ci turu sëñ Touba. def ko ci turu sëñ Touba. fas yéene faa tabax lii. fas faa tabax lii. ngir dimbalee ko ñi nga xam ne. ngir dimbalee ko ñi nga xam ne. ña ngay ñëw ci hôpital te amuñu fuñ ña ngay ñëw ci hôpital ba ci amuñu fuñ dëkk. te xam ngeen ne hôpital bi. buñ la waxoon la fay dugg par bis. la waxoon la dugg par bis. doo ko mën a gëm ndax ngir bari. te day yokk te day yokk ndax dëkk bi moo màggee noonu ndax dëkk boo xam ne at mu jot la cay màgg di ca dolli ko la cay dolli ko chaque année dana mat lu mat juróom fukki junni nit ci liñ déclaré te liñ déclaré wut moo ëpp kon Touba ni muy màggee buñ ko dul gàttandu yàgg yàgg day masa am jafe-jafe kon nag lii gàttanduk ñaanuk Serigne Touba képp la kon ñi ngi lay ñaanal kattan gi nga am ba mën koo jëf balaa nagani si déwén balaa nagani si déwén yal nay asaka yi li ngay am ak li ci yéene it liggéeyal ko sëñ Touba yal na ko sëñ Touba nangu laqal la ko it fa yàq yëgut wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xew xew baa ngi noonu. pose première pierre centre d'accueil muy këru dallukaay jàkkaarloo ak foofu ci hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim le 3 euh, février incha allahu rabbi bu 11h jotee ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn yàlla na ñu ko toogee def appel bi yàlla na ñu ko toog inauguré ci barke Cheikh Mouhamadul Moustapha asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu